lié Petrosen Holding et ça Démon Sonko et Thierno Alassane Sall mu mel ni Petrosen moom daal dafa weddi lépp li nga xamante ne euh, Thierno Alassane Sall ak euh, Ousmane Sonko wax nañ ko jëm ci wàllum pétrole bi ak euh, li nga xamante ne moom la ci Sénégal di am soose. waaw <coughs> ngeen baal ma Nabou c'est vrai loolu mooy <laughs> loolu mooy. Mhm. <laughs> mooy fàttale sama maam ndeysaan balaa muy wax faaw mu xàddamiku waaw jekk-jekkal toogaay bi ndeysaan sama maam dafa bëri woon tiitar nag ngaan <laughs> maam nga bëri woon tiitar maam xarit sëg la waaw ah, non sama xarit la wallaay sama xarit la ndeysaan <laughs> léegi euh, Petrosen <coughs> xam nga dafa am Petrosen am Petrosen Holding SA waaw loolu aussi mhm. euh, xam nga Thierno Alassane Sall mhm. dafa naa bërki démb dafa génn di waxaat ci contrat yi euh, ba ma naan la kii lu mu ci wax moom xam na ci dara mm-hmm. moom ko defee tamit Petrosen Holding SA bi nga xam ne euh, suma frère Adama Diallo moo ko jiitee mooy sunu maire bi ñun waa Gossas mooy sunu maire moom la Macky Sall euh, jox Petrosen Petrosen Holding SA dañu génne benn communiqué pour di leeral Sénégalais yi parce que ñoom nee nañu gars yi wax ci contrat yi parfois dañuy juum ci lu baree baree bari ñii nee nañ 10 pour cent mais dama lay tënkal ci lu gàtt rek li nga xamante ne moo tukkee ci communiqué bu bu kii bu nu mu tuddati bu Petrosen ñoom nee nañu nabu mhm. euh, li nga xamante ne li ñu war a njëkk comprendre mooy affaire pétrole bi daf ci am loo xamante ne aussi il faut nit ñi comprendre ko dafa am ñaari phase dafa am phase d'exploration am phase d'exploitation ñoom ñooy wax nag nee nañu part yi nga xam ne moom la Sénégal di di di di di di xaar ci contrat yi entre cinquante la ba soixante quatre pour cent ñoom loolu la ñuy wax waa seen Holding SA nee nañu bu dee paaru état bi. bu dee paaru Petrosen foofu la ñuy tàmbali nee nañu Petrosen bi nga xam ne mooy pétrole du Sénégal mu nekk société nationale. moo mm-hmm. xam ne état bu Sénégal moo ko moo moom à cent pour cent nee nañu ñoom législation bi moo leen may képp koo xamante ne rek ñëw nga pour explorer dañuy am automatiquement dix pour cent ñoom. Mm-hmm. donc loolu la communiqué bi wax et nee nañu loolu moo am diggante Petrosen ak GTA. am diggante Petrosen ak Sangomar aussi. bu dee paaru état bi nee na paaru état bi ñu ngi koy xamee diggante trente cinq ba cinquante huit pour cent donc bu waroo lool nag ak chiffres yi nga xam ne euh, ñu ngi koy ñu ngi koy dégg mu jóge ci souvent Ousmane Sonko ak Thierno Alassane Sall yi nga xam ne ñoom ñaar ñoo ëpp pratiquement lu ñu ci lu ñu ciy wax mu mel ni daal diggante le les les acteurs politiques. état bu Sénégal à travers Petrosen bi nga xamante ne moom moo war a gérer lépp lu aju ci wàllu pétrol beeg yooyu am na ci différence ci seeni kàddu loolu nag muy lu xaw a doy waar aussi parce que nag ñu nekk ci réew boo xam ne Thierno Alassane Sall par exemple loo ko bañ bañ bañ nangul ko ne dossier bii ci loxoom la jaar. Mm-hmm. waaw te gëw ma ne am na intérêt wu taxaw di wax ci sénégalais yi di wax ak sénégalais yi loo xam ne amul. bu fekkee am na aussi responsabilité am la moom en tant que homme politique. Mm-hmm. waaw donc daal mu nekk dossier boo xamante ne gis nga démb Alpha daf fi wax lu am solo. Mm-hmm. souvent nos autorités dañuy am problème pour di engager ay débat technique débat boo xam ne dañ koy wékk rek ci xam-xam loolu warta mën a jafe ci réew mi waa Petrosen Holding SA ak l'actuel ministre. ak ñii di coow nii ci contrat yi muy Sonko muy Thierno Alassane Sall war nañoo mën a nag toog waxtaan gindi sénégalais yi mais bu ku nekk toogee fi nga toog yor say chiffres kii da naan lii la kii ne du lee. léegi mais kañ la yi di comprendre Petrosen moom mi nga xamante ne dafa dafa weddi. te moom moo yor document yi. waaw luy jiig njaag mooy njaag. Hmm. lan la génne communiqué. communiqué la génne wala communiqué la def démb wala ay ay ay document communiqué képp la def démb pour rappeler lii ma la wax nii. d'accord d'accord loolu la. est-ce qu'il ne serait pas préférable ñu génne ay documents yu leer. loolu laa lay ci accès comme jëf yi la. loolu laa lay wax ku comme ça mu mën a leer ci bopp nit ñi ñu xam chiffres fii la toll ak lii lañ ciy am ak lii la mais moo gën mu leer benn yoon xam nga xam nga kuréel gu mel ni RTS. Mhm. débat yu mel nii war nañ ko mën a leeral askan wi. wax la rek ak tontu de comme ñoom xam naa ne ñoom waa nguur gi dinañ sawar a dem RTS. mais nañu organiser débat woo Thierno Alassane Sall xam ne mooy directeur général Petrosen woo même le ministre si le faut woo ay experts ñu toog ñu gindi sénégalais yi ci wolof bu leer nag sénégalais yi parce que dafa jot nag ñu compte parce que ngaa la mënuñu ne pétrole bi 2023 la commencé génn. Mhm. te ba fii sénégalais yi amuñu ci lu leer. Hmm. kii ne lii la bu subaa kii ne déedéet du lii lee la mais lii mooy tax gis nga Guinée am na société ba fa doon explo exploité benn benn benn kii benn miine mais da doon sàcc affaire yi di ko yóbbu. parce que état bi amul xarañteef ak fulla yi contrôler li ñuy dugal ci bato yi balaa muy génn. gis nga kii exploité day duy ci batoom yóbbu ko bu eggee so ci la lay soog a wax nag ne man lii laa génne. Afrique gépp la loolu mooy lan. Afrique gépp la. bu ñu sàgganee senegal loolu dinañu dal nañ fi toog di werante ci ay chiffres parce que li am ci géej gi ñun xamuñu ko ah peut-être ñoom ñi ne ci état bi xam nañ ko mais le sénégalais lambda bi nga xam ne. référendum bi ñu mujjee def moo dugal ci charte réew mi ne les ressources naturelles appartiennent au peuple. soose maanaam ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi. soose waaw nga baal dafa am saxaar goo xam ne fii ci xombal saxaar gi xombalee bàyyi ko di tibb sunu am na produit bu ñu tibb xombal te te raay bi ba mu yàqoo ba teewoon ba ndar ba te kenn defaru ko waaye raay bu bees la saxaar gu bees la am lu muy tibb du ko yóbbu ci port bii. Hmm. lu tax sénégalais xamuñu ko. li muy laaj nii gis nga gis nga fi ñuy fi ñuy fi ñuy fi ñuy exploité pétrole bi ak gaz bi foofa n'importe kii du fa jote te war nañu mën a sax organiser ay visite ubbil ko taskatu xibaar yépp oustaz ñu dem xool installation yi exploitation bi visiter xool informer les sénégalais foo xamante ne yaa xayti bato moo la fa yóbbu wala hélicoptère mais naka la sénégalais di lambda bi di mën a amee la bonne information bu fekkente ne ñii nee nañu paaru Sénégal temps la ñeneen ñi ne paaru Sénégal loolu lee la mu mel ne dafa am fulu bu ci nekk boo xamante ne pour man. du suñu intérêt ñun ñëpp. pétrole beeg gaz beeg lu mu ci mënti doon lépp luy ressource naturel ressource minérale ak lu mu ci mënti doon sénégalais yi ñoo ko moom. te ci mhm. référendum bële passé lañ ko voté. mënuñu mënuñu moom suñ jëf ba pare nag. mami ma jox la ma daaneel jox la mënuñu moom suñu jëf ba pare waaw. société de pétrole ak état bokkul wala. lan la état bee ko moom. waaw lan moo tax kon ci distribution part bi ñu naan Petrosen lii état lii. dafa waaw kay am. paaru état loolu man daf ma posé problème xanaa kon Petrosen moom liggéeyalul état. Petrosen daa am part boppam état am part boppam. j'ai pas compris expliqué ma ngi mel ne Sénélec. Mm. xam nga Sénélec entreprise nationale la. Mm-hmm. Sénélec sénégalais ko mais Sénélec mën na def ay investissement yaa ngi may dégg. Mm-hmm. Sénélec mën na def ay investissement xaar bénéfice. Mm-hmm. xam la même chose la Petrosen tey ak ku mënti demander nga am sañ-sañu exploiter. balaa ngay exploiter da ngay explorer ba pare. Mhm. ci phase d' exploration bi Petrosen am na ci 10 pour cent déjà léegi bu ñu demee nag bay exploiter nag foofu ñoom ne nañu seen part mën na jóge 30 ñaata la ñu wax 30 38 ou 36 30 ana ana ana chiffre yi encore. Mhm. parce que booy wax aussi da ngay wax lu leer loo xamante ne nii. Sénégalais yi dinañ ko mën a dinañ ko mën a dégg waa voilà cinq pour cent ba 58 pour cent. Mhm. ñoom loolu la ñu wax mais ba tey lii ça ne règle pas le problème parce que communiquer kese kese kese pour man war nañoo mën a def plus ba nga xamante ne dina dimbale Sénégalais yi ñu gën a mën a comprendre dossier bi lan moo ci ne parce que coow li dafa yàgg. Mhm. yàgg na trop ñuy wax paaru Sénégal jaay nañ suñu pétrole dugg na fii génn na fii ñun Sénégal war nañoo mën a am euh, dëgg yàlla xarañteef. doy war nañoo mën a toog def débat technique scientifique bu xool pour que sénégalais yi am la bonne information man soo ma dara wala nga wax ma loo xamante ni da ko teg ci ay chiffres yu leer du ma def ci euh, du ma du ma du ma tënku ci ay c'est ta parole contre la mienne damay jël ay kayit teg bu fekkee am naa ay kayit yu mën a firndeel ni yow li ngay wax tegoo ko ci yoon ay kayit lay teg mu gën a leer parce que xam nga xam nga kayit yi li solo mooy les contrats mu gën euh, leer ci bopp nit ñi ba pare gën a dindi euh, njàkkare ak Euh, nit ñi li ñu amee jeexi jaaxa ci wàllum pétrole bi. man fi may invité Nabou. Petrosen ak Petrosen Holding SA ak l'État même. Mhm. nañu def une communication terre à terre balle à terre ci contrat yi. Mhm. d'abord les contrats kayit bi ngay wax noonu. contrat bi ci boppam mais le Sénégalais lam daa xamul lu ci nekk alors que dañu am droit xam li ci nekk. Mhm. mais nañu def communication bu simple wax ak sénégalais yi ne leen contrat yi ñu signé ñun lii moo ci nekk. langage de vérité la. transparence la sax pour man. mais contrat yi d' abord xaw ma ndax c' est publié ou pas je sais pas. dëgg yàlla xaw ma ndax publier nañ ko ou pas peut-être boo demee ci site ITIE initiative pour la transparence des industries extractives xëy na dina fa nekk je sais pas mais daal du ñëpp a jàng aussi am na koo xamante ne da nga koy tekkil mbir yi di ko ko faram-fàcceel ci wolof bu leer bu mën a comprendre lii lan la. Mhm. moo tax bu ñu ko def rek un débat maanaam ñoom borom xam-xam yi rek di ci wax ci seen kaw. Mhm. ci kaw bàyyi sénégalais lambda bi ci suuf. Mhm. te pourtant sénégalais lambda boobu moom moom nit yi. nee nañ les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mhm. effectivement bi dafa war a leer. soo si dinaa dinaa ñëwaat ci yow yaa sëy dinaa ñëwaat dafa am ma am ci ligne bi ñu daal di koy dugal Samba Tall euh, Sall ñu ngi lay nuyu Sarr ah bonjour monsieur Sarr. oui bonjour. ñu ngi lay nuyu di aman mbégte di la dalalaat ci suñu émission fajaru. pareillement vous aussi. ñu ngi mhm. leen nuyu di leen ziar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ñu ngi leen di suivre matinalement bi. Mm-hmm. Hmm. jërëjëf euh, Samba Tall Sarr porte-parole parti national des ressources humaines euh, monsieur Sarr balaa ñuy ma lay ma mami ak soose ñu am ak yow laaj ak euh, tontu dégg nga li sen daal di publier mu indi benn démenti par rapport ak propos yi nga xamante ne Thierno Alassane Sall ak Ousmane sonk yëkkati nañ ko ci lu jëm ci wàllum pétrole bi ban jàngat nga ci am. waa jàngat bi d'abord damay jojjanti mm-hmm. délégué national chargé des ressources minérales la. Oh, ok. Mm voilà donc euh, beneen affaire bi may leeral comme ñu ngi suivre actualité bi. Mm -hmm. defe naa ni par rapport aux propos de Thierno Alassane Sall. Mm -hmm. certes je ne suis pas son porte-parole. Mhm. je suis le porte-parole du parti Awalé docteur Abdourahmane Diouf. d'accord. mais je pense bien que ni Thierno Alassane il a bien parlé quasiment sur. Mm-hmm. les fonds maanaam mbiru xaalis. monsieur Sarr. est-ce que est-ce que doo doo doo wax ci wolof mu gën a leer ci ñun ñëpp. ñu waaw dama ne Thierno Alassane ci li mu gën a wax. waaw waxul ci pourcentage. Mm-hmm. ci waxu xaalis la wax. Mm-hmm. kon Napoléon bu ñu polier débat bi dañu ni Ousmane Sonko moo ni dix cent la ñu am ci petrolu Sénégal. état ñëw ni. entre cinquante huit ak soixante quatre pour cent lañ ci am Ousmane Sonko waxul dëgg. Mhm. ñun ñu jàpp ni nous avons droit au chapitre pour wax ak sunu sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo moom pétrole bi ak gaz bi ci article vingt cinq de la constitution wax ni ressource yi dafa war a dellusiwaat ci askan wi. Mhm. wax ji mooy. bépp société bu jotee à l'extérieur ñëw dugg Sénégal pour def exploration exploration mooy recherche ci kàllaama kocc mooy jeex pour xool Petrosen day am dix pour cent defe naa loolu leer na pour sénégalais yi gën a comprendre maintenant ci contrat bii nga xamante ni tey sur les vingt neuf blocs yi nekk ci réewum Sénégal. ci géej gi parce que su ma nee géej gi damay préciser onshore maanaam mooy jéeri mhm. mooy gazu ngajaga bi maanaam ci géej gi ñaari investissement kese la ñu def muy Sangomar ci pétrole bi ak GTA sunu digganteeg Mauritanie bokk ci bloc Saint-Louis offshore profond mooy gaz bi mhm. ci coow pétrole bi nekk Sangomar Petrosen da cee am dix pour cent mhm. bu ñu paree état bu Sénégal daf ci am dix huit pour cent ma dimbali leen sax am na ñoom luñ ci boolewul mooy bu ñu jëlee seen dix pour cent pour Petrosen mhm. état bu Sénégal daf ci cëru à hauteur de dix huit pour cent am imposition ak location superficielle. mais balay loolu di dugg état bi dañoo war a wax ni avant ñoom ñi egsi ci euh, nuñ koy waay partage de production bi dañuy génne le coût d'investissement ba pare doog a am cër boobu maanaam tey bu ñu nee cent mille barils de production la soixante quinze mille yi dañ koy jël dugal ko ci compte d'investissement bi. ñaata moo des kon du vingt cinq mille vingt cinq mille yooyu nag moom la ñuy séddoo yooyu la ñuy imposer mais soixante quinze mille baril ya kenn du ko imposer lii mooy la réalité des chiffres clair na wala clairul euh, euh, explication bi xaw na technique tuuti Euh, et bu technique yi ñi duñu ko mën a comprendre léegi ci explication maanaam bu gën a terre waaw li ngay wax mooy maanaam suñu la déggee kon Petrosen communiqué bi ñu génnee dëppoowul ak la réalité des chiffres maanaam séddoo gi bokk ci paar gi ni ñu ko waxee ameewul noonu est-ce que kon mën nañu jàpp ne li son Sonko wax. wala li mhm. Thierno Alassane Sall wax. donc moo gën a méngoo ak dëgg par rapport ak situation réalité des chiffres. et ci tënk état bu Sénégal en réalité. ak Petrosen ku ci nekk ñaata la am ci part pourcentage bi nga xamante ne moo jëm ci suñu wàllum pétrole ak qu'est-ce qui revient également au peuple sénégalais. ci kaw loolu pourtant expliqué naa de xanaa ma gën ko gàttal dama ni xam nga lambda sénégalais di toog nga ne ko Sénégal am na ci 64 pour cent danaan la baax na. mais waxuñu sénégalais yi ni dañuy génn le coût d'investissement. te coût d'investissement ba dafa lourd dafa diis. maanaam bala ñuy egsi ca partage de production dañuy génne li nga xamante ne moom la multinationale di investir ba pare mm-hmm. doog a nag cëru mm-hmm. loolu mooy maanaam ni ma la ko mën a waxee ci gàttal bay séddoo maanaam maa indi sama engrais maa indi samay fas man maa indi sama gerte man maa def lii man maa def laa ñépp nangu ko bu ñu xayee gerte gi ba pare ba la ñuy séddoo man li ma ci defoon yépp dama koy jël ba pare loolu mooy le coût d'investissement mm-hmm. léegi coût d'investissement bu ñu ko jëlee ba pare nag dafa am lu muy représenter moo tax ma ni ma jël exemple cent mille barils yi mm-hmm. par exemple tey dañuy jël soixante quinze mille yi def ko ci sur le coût d'investissement mm-hmm. ñaata moo des du vingt cinq waaw vingt cinq yooyu moom la ñuy doog a séddoo cela veut ni sénégalais bi déggul xamul ñu ni ko 64 pour cent mais danaan kon aya bimbam baax na neex na <laughs> samba te tel n'est pas le samba oui mais bu fekkee yow investisseur nga xam nga ne affaire yi noonu lay doxee est-ce que est-ce que est-ce que ce mhm. ci phase d'exploration bi ak phase d'exploitation bi dafa investir ci contexte bi waaw ah, est-ce que est-ce qu'il a investi ci blogu Sangomar bi. ñaar yëpp GTA ak Sangomar. waaw loolu laa wax Sangomar Sénégal investir na ci. investir ci plus de cinq cent vingt cinq milliards. Hmm. loolu moo tax état am ci part. est-ce que dégg nga ma bu baax. Hmm. ci loolu imposition bi may wax. du soixante quinze mille baril yi gis nga vingt cinq mille baril yooyu may wax ni moom lañuy ñuy séddoo après. loolu moo ñuy imposer. Mhm. dégg nga ma baax léegi te ci sunu code pétrolier xam nga critiquer c'est bon mais proposer aussi c'est mieux gis nga kon ci contexte bi ñu toll ci sunu code dañ ni képp kuy ñëw di jeex pétrole loo gis da koy yóbbu banque de données bu Petrosen loolu moo ñu may tey ñu xam nombre de blocs yi ñu am. Mm-hmm. loolu moo tax ñu xam ne tey am nañu ay milliards de barils de pétrole loolu moo ñu wax tey ni am nañu ay milliards de mètres cubes de gaz moo tax ñun modèle de contrat bi ñu jël tey muy partage de production maanaam séddoo tey Sénégal kenn weranteetul ni kon nekk na pays pétrolier pays gazier parce que on parle de milliards mm-hmm. waaw kon kay lan moo tax ñun bien vrai que amuñu kattan koom pour exploiter suñu pétrole ak suñu gaz. waaw kay mais am nañu sañ-sañu bépp multinational muy Cosmos di BP di Far Limited di kummanti nekk boo ñëwee fii ñi signé yow un contrat de service fay la li nga la war a fay nga dem sa yoon ñun ñu gérer suñu pétrole ak suñu gaz cela veut dire que ni loolu. mais malheureusement mais malheureusement Sénégal Sénégal tollagul foofu malheureusement. tollawul fan. est-ce que Sénégal tey mën na mën na defal boppam exploration defal boppam exploitation moom kese. déggoo ma de kon yow. dama ni la amuñu doole juñ ko defee. waaw kon kay kon kay yi ñu def ba pare laa wax. waaw c'est prouvé maintenant que ni Sénégal am na ay milliards de barils ci pétrole ak milliards de mètres de gaz. loolu leer na léegi ñëpp. kon tey modèle de contrat bi mën nañ koo changer léegi. def ko modèle de contrat de service. compagnie bu ñëw. nekk sous-traitant ci ci Petrosen dañ lay fay sa xaalis ula ñu waxaale par baril ñu fay la sa xaalis leneen li ci des li gars yi naan flow maanaam tout ce loo xam ne moom moo nekk euh, la ligne de la production anglais di ko wax up stream down stream maanaam danamo en naval Sénégal moo koy gérer boppam cela veut que ni compagnie bu ñëw fii ci waaw Petrosen ngay dox ndax Petrosen ñun ñoo ko moom mooy les pétroles du Sénégal wax bi lii la Thierno Alassane bi muy wax il plus plutôt sur l'argent parce que maa ngi dégg ñuy wax ay cinquante et un milliards ñu naan dafa ndaw ndawul mais ci part bi nga xam ne Ousmane Sonko moom la wax dafa ni dix pour cent état ni ko c'est plus de soixante quatre cent mais état waxul askan wi ni avant ñuy cëru soixante quatre pour cent dañuy génne sa coût d'investissement bi nga xamante ni moom mooy fardeau bi moom mooy diisaay bi c'est ça la réalité. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf soxla woon euh, euh, dégg ci leeral ci ci xam-xam bi nga xamante ne am nga ko également ci euh, lépp lu ajo ak maanaam question minière xam nga Nabou li ñu war waaw li ñu li ñu war a dégg Samba Tall Sarr gërëm nañ la jërëjëf merci beaucoup. merci ñu waa waa parti Awalé xam naa incha allah du ñàkk soose dina la jël ci édition spéciale euh, ngeen mën a gën a yaatal ci yenn yenn yenn émission yi alors Ndambu dama bëgg rek. ma rebondir ci li nga xamante ne moom la Samba Tall parce que qu'en vrai bi muy daaneel sax li ñu soxla woon dëgg-dëgg ci wàllu xibaar man moom ma koy door a jox mooy ñu comprendre ne en réalité kon euh, Ousmane Sonko n'a pas tort xam nga lu tax il n'a moom ce qu'il mooy. li nga xamante ne maanaam dugguma sax sax ci wàllu pourcentage on parle du principe et ça c'est sur le principe bu ñu demee ba ñu découvrir ci Sénégal ne am nañu fi pétrole ci ay milliards am fi gaz ci ay milliards mooy ne am nañ fi loolu richesse boo xamante ne dëgg-dëgg lu Sénégal wala exploité la ki ci war a gën a jëriñoo c'est le Sénégal et le Sénégalais on est d'accord aujourd'hui li Ousmane Sonko wax mooy ay dëkk yu mel ni Qatar ay dëkk yu mel ni Dubaï ay dëkk yu mel ni Arabie Saoudite xam nga ñooñu li tax ñu jox leen cër c'est parce que justement euh, li nga xamante ne maanaam prise bi ñu am main main main mise bi ñu am ci seen euh, ci seen ay ressource euh, ba tax tey ñu kattanal leen ils ont fait de telle sorte que dañu ko téye ci seen loxo noonee donc foofu Sampatal Sarr daanelee mooy ne Sénégal maanaam dafa war a am fullaay te li nga xamante ne moom mooy moomeel googu. Euh, sunu ressources yooyu nga xamante ne sunu borom defal nañu ko ressources pétrolières yi nga xam ne découvrir nañu ko et bu ñu dee signé ay contrat kon ñu signé contrat yoo xamante ne nii avantage bi sénégalais bi moo koy ëpp moo koy moom est-ce que comprendre nga et sur la base et sur le principe ci loolu laa d'accord il n'est pas normal que ñu nekk ci am réew mu tudd Sénégal sunu borom xéewalee ñu lu mel ni pétrole xéewalee ñu lu mel ni gaz ñeneen war a mën a jóge feneen quelque que soit rapport bi nga xamante ne ñoom la ñu seq ak ñoom ñoom ñu gën ci avantagé que sénégalais bi nga xamante ne moom moo am richesse bi donc li nga xamante ne moom la soo ko wax ci wàllu woowee mooy ne moom mu ñëwee contrat yooyee dina ko xoolaat de telle sorte maanaam mën na nekk contrat de service yi nga xamante ne moom la Samba Tall sax di wax mooy nepp aujourd'hui boobee beneen société boo xam ne ci wàllum exploitation li nga xam ne ñun en tout cas mooy suñu faiblesse ci wàllu woowee te mënuñu ko ñu sous ak kooku kooku bu ñëwee li muy sous ak ñun loolu lañu koy fay mais du tere ressource bi ak doole bee kàttan bi ñoo koy moomal suñu bopp loolu mooy dëgg pour man. alo oui madame. allo oui bonjour monsieur Sène. ñu ngi lay nuyu di la dalalaat ci suñu plateau fajaru. merci beaucoup. Mhm. ñu bàyyi la nga nuyoo ñi ñuy seetaan. waaw maa ngi nuyu waa 2A TV yëpp euh, di leen wax ni namm naa leen parce que gëj naa fa un peu. Mhm, ñoo la raw. Euh, maa ngi seen disposition actuellement. incha allah incha allah. Euh, Socé xanaa ma bàyyi la nga nuyoo Clédor après ngeen laaj ko ci ci wàllum Petrosen ak démenti bi nga xamante ni apporté na ko. waaw bon euh, je pense que li ñu ko war a njëkk a laaj mooy AVM par rapport ak communiqué bi nga xam ni euh, Petrosen Holding SA génn nañ ko démb loo ci xalaat. waaw li ma ci xalaat rek mooy mooy mooy mooy communication la euh, man je crois que damay dérouler pour expliquer leen mu leer parce que pour mu leer il faut que ñu ñu teylu ko euh, bañ ko yàkkamti benn benn benn benn bennal ko ba compréhension bi yomb ci nit ñëpp. parce que ñoom dañu ni te yàgg nañ ko wax commencé wàññi nañu sax seen chiffre parce que Manar Sall doon na dem ba ay soixante quatorze pour cent mais bi yoon ñoom dañu ni entre cinquante et soixante quatre pour cent le état du Sénégal di am ba noppi préciser li Ousmane Sonko bu mu jaxase paaru Petrosen ak paaru état du Sénégal euh, Petrosen c'est la société nationale de pétroles du Sénégal su fekkee ni Sénégal moomul Petrosen nañuy wax kan moom moom Petrosen ba war ñu boole paaru Petrosen ak paru Sénégal léegi ci wàllu pétrole ak gaz dañu am benn code pétrolier bu ñu bind depuis 1998 code pétrolier bu 98 moo applicable à tous les contrats signés parce que 2019 la ñu def un code pétrolier nouveau qui n'est pas rétroactif donc contrats yi dafa am lu ñuy wax clause de stabilité donc li ñu signé quatre-vingt-dix-huit euh, code pétrolier bu quatre bi moo régir tous les contrats pétroliers ay Sangomar ak ay Saint-Louis ay Kayar ak li ñu am yépp c'est sous le régime du code pétrolier de 1998 première aberration ngeen may ma nag ñu jël tout temps pour la compréhension des gens parce que c'est très grave ce qui se passe constitution dafa ne les ressources naturelles appartiennent au peuple loolu xam nga lu leer la mais code pétrolier bi xam nga lan la wax article trente code de quatre vingt dix huit dafa ne le titulaire du titre minier d'hydrocarbures acquiert la propriété de l'hydrocarbure extrait en tête de puits maanaam ki am licence su pétrole bi ak gaz bi moom moom lépp lu ñu ngàcc ci pétrole ak gaz borom licence bi moo ko moom waxuñu état du Sénégal waxuñu le peuple le titulaire du titre minier d'hydrocarbures acquiert la propriété de l'hydrocarbure extrait en tête de puits mmh. première inconcordance ak constitution donc amul conformité quoi par rapport ak les textes non par rapport ak constitution bi moom loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy fël la mu jàll pour wan la ne rek ni ëllëg ku fi ñëw hmm. bu bëggee teggi li fi nekk bu sukkandikoo ci constitution bi sax day dañ dëgërul taxawul nit ñi dañ dul visiter texte yi kooku muy première chose première précision moo tax ma ni nañu def tànk léegi deuxième chose la répartition des parts toujours ci code pétrolier bi dañu ni Petrosen mi représenté Sénégal bu fekkee ni bokkul ak état du Sénégal ñu wax ma dix pour cent d' actifs mmh. lay am gratuitement maanaam dañ ko koy baaxee d'office d'office mmh. léegi quatre vingt pour cent yi ci des société bi moo ko moom kii mooy moy Total muy Cosmos muy BP muy tubaab yi daal ñoo moom quatre vingt pour cent yi ci base boobu la ñu demee léegi dañ ci teg ne tubaab bi lépp lu mu dépensé ci recherche ci exploration ci développement ci exploitation dañ ko koy fay naka lañ ko koy fayee day tekk soixante quinze pour cent ci production bu fay génn au titre du remboursement des coûts pétroliers. des coûts d'investissement. léegi bu ñu nee comme par exemple blogu Sangomar. plan de production bi ñu déposé euh, cent mille barils par jour la léegi ci cent mille barils jour yooyu soixante quinze mille barils yi déjà contractant bi moo ko moom da koy téq au titre du remboursement de ses coûts pétroliers te soixante quinze pour cent yooyu dafa dul sax fay impôt léegi dix pour bi muy dix mille barils yi sur cent mille ñu jox ko Petrosen kon lan mooy des quinze pour cent donc quinze mille barils léegi quinze mille yooyu des moom la ñu tuddee production restante wala profit oil soixante quinze pour cent boobu ñu teq mooy euh, recouvrement des coûts pétroliers moom la ñu tuddee cost oil boobu du fay sax impôt donc quinze mille barils restants yooyu la ñuy séddowaat ci benn tableau de partage de production moo tax ñu tuddee contrat bi contrat de partage de production. Mmh. léegi ñun am nañu dix mille baril ci cent mille yi ñu njëkk produit yoo xam ne gratuitement lañ ko jox euh, Petrosen mais quinze mille baril boobu des moom la ñuy séddoowaat moom la ñuy wax paaru état du Sénégal mhm. léegi quinze mille baril boobu bu ñu koy séddoo mhm. soxna si yónnee naa la benn euh, le tableau de partage de production tableau de partage de production bi dafa ne de zéro à cinquante mille baril ci quinze pour cent yooyu lañ ci am tubaab bi am soixante quinze pour cent bu dee de cinquante mille baril ba cent mille baril vingt sept pour cent la ci Sénégal di am tubaab bi am soixante treize pour cent mm-hmm. bu fekkee ni nag ma ma ñëw ci ci tranche bu mujj bi bu fekkee ni ëpp na deux cent baril par jour ca la Sénégal di doog a am cinquante pour cent donc ñoom euh, la meilleure possibilité la ñu jël c'est-à-dire au meilleur des cas Sénégal cinquante pour cent la ci am pour pourvu que ñu dépasser deux cent mille barils jour donc léegi cinquante pour cent boobu buñ ko boolee ak dix pour cent Petrosen dañuy dañ koy tuddee soixante pour cent donc loolu c'est c'est fallacieux ay naxaate la ñoom nañu leeral ne ca lay des ci production bi mm. la ñuy seetlu te mënuñu ci am cinquante pour cent ma wax leen pourquoi mënuñu ci am cinquante pour parce que plan de production bi euh, Woodside euh, bi Far Limited ak Cairn Energy déposé ci bloc bi avant Woodside dafa ñëw te Macky Sall approuvé ko cent mille barils jour la cent mille barils jour vingt sept pour cent la ñuy am ci production restante bi maanaam ci quinze mille barils yi des ñu war ko séddoowaat quatre mille cinquante barils lañ ciy am quatre mille cinquante baril yooyu ngay dolli ci dix mille baril euh, yi ñu am ci njëlbeen bi mu nekk quatorze mille cinquante baril sur cent mille baril produit loolu la ci Sénégal di am maanaam quatorze et demi pour cent loolu mooy la réalité léegi nag code pétrolier bi dafa Sénégal am na droit jëndaat dix pour cent d' actifs mm-hmm. waaw léegi ñun li ñu war a jënd ci pétrole bi dañu cee limité mënuñu jënd plus de dix pour cent d' actif loolu moo nekk ci code pétrolier bi loolu du buumu njaam yow sa alal non seulement dañ la koy jaay mais la nga cee jënd dañ la koy nattal ni mënul weesu dix pour cent d' actif supplémentaire donc dix pour cent yi boo ko boolee ci bu bu fekkoon état du Sénégal exercé na euh, préemption boobu mu jëndaat dix pour cent ci actif boole ko 10 pour cent Petrosen day doon 20 pour cent ak li muy am ci production restante bi mu boole ko donc ça veut dire que day doon 20 000 barils de la production totale commerciale plus euh, euh, 4 050 barils muy am ci production restante bi ci base u euh, plan de production wu 100 000 barils jour mu nekk 24 000 barils 50 loolu mooy le la la le plafond bi Sénégal mën a am. ci pétrole am ak gazam bi nekk Sangomar parce que loolu moo nekk ci contrat yi te yónnee naa leen tableau de grille de partage de production bi bu fekkee ni mën ngeen ko won ñi leen di seetaan ñu dëgg ñu ñu xool ko loolu mooy mooy li am. kon pour récapituler. mais Clédor code pétrolier bi dafa ne. oui kii moom licence bi moo moom hydrocarbure bi bi ñuy extraire en tête de puits kooku muy benn ñaareel bi Petrosen 10 pour cent la ci am. état du Sénégal mën na jël dix pour cent mais mënu koo weesu supplémentaire. Hmm. bu ñuy séddoo laata ñuy commencé ñoom dañuy fayeeku lu ñuy investir ba pare maanaam muy soixante quinze pour cent production bi moom la ñuy tëq euh, doog a séddoo quinze pour cent bi des gannaaw bi perso seen jëlee dix pour cent quinze pour mooy des loolu mooy production restante. léegi cette notion de production restante nag la ñu autorités yi du leeralal du wax. te te cinquante pour cent mënuñu ko am parce que le plan de production ne n'excède pas deux cent mille barils grille bi mu ngi foofu léegi nag ñoom bu fekkee ne li ñuy wax dëgg la te jox na aussi nit ñi am lu leer parce que polémique bi dafa dafa yàgg. Mm-hmm. mais ni ñu ñëw ci plateau yi contrat yi ñu ngi nii ñoom ñoo ko bind ñoo ko xaatim wan naa leen signature Macky Sall ci contrat yi bu leen yónnee soxna si nabu yow yónnee naa la ko. mën ngeen ko partager a outrance ñëpp xam ko. Mm-hmm. mais nañu ñëw ci plateau yi ak seen document. ñu ñu leeral te de toute façon dinañu leeral parce que danañ dem assemblée assemblée fi mu nekk nii dootul assemblée ba woon danañu dem ñu leeral foofu naka la Sénégal amee 54 pour cent gi 60 pour cent. waaw léegi ils seront léegi avec des députés qui sont outillés. qui vont leur poser les vraies questions ñu ñu foofu dana fa leer. loolu yàggatul. session mu ngi tijji. donc c' est pas la peine qu'on nous mente. ngeen baal ma ci kàddu bi. parce que li ñuy wax. dafa tegul ci dëgg. dafa tegu ci ay naxaate et c'est fait exprès ñun kay li ñu am bu fekkee ni néew na nañ ko nangu rek te xool naka la ñuy fexee yokk li ñu am. waa waaw Clédor. ñoom waaw. ci néew na boobu ngay wax ñoom li ñu ne ci at ci atum deux mille vingt trois bi ci budget bi booy xool yaa ngi wax léegi assemblée. waaw nee nañu cinquante et un virgule six milliards la. waaw li ñu wax mooy deux mille vingt quatre dina dem ba cent quatre vingt seize virgule huit deux mille vingt cinq trois cent vingt deux milliards virgule cinq pour yow lan moo indi évolution boobu. non évolution boobu communication sur le débat public moo ko indi te ba léegi loolu dafa sore trop réalité bi parce que boo xoolee budget ren euh, yokk na de plus de mille milliards te li ñu layalee yokkute boobu mooy apport bi gaz ak pétrole dugal ci budget bi te nekk gu ñu sax en phase d'exploitation kon chiffre yi ñuy wax ay cinquante milliards ak cent milliards ay ay ay ay chiffres yu faux la dañu koy naxee rek mu ngi mel ni rek euh, ITIE ni de tout nos ressources naturelles on n'a que cent soixante milliards alors qu'en 97 déjà on avait plus de 300 milliards yooyu c'est des chiffres faux yoo xam ne yu ñu war a lijjanti la. donc ci budget ren ñëpp constaté nañu plus de 1000 milliards yokku na ci te dañ ko layalee apportu pétrole ak gaz. Mhm. rien que ci amoon pétrolier bi te dugguñu en phase d'exploitation. mais naka la ñu war a def en phase d'exploitation. naka la ñu war a def ma ne. naka la ñu war a def ba méngale li constitution bi wax ba ne ressources yi sénégalais yi ñoo ko moom. ak code pétrolier bi nga xamante ne moom dafa ñëw wax pratiquement le contraire. mais loolu assemblée moo koy lijjanti moo tax ma ni leen yaakaar am na parce que assemblée bi changé na parce que il faut il faut il faut ñu conf euh, suñu texte de référence yi. il faut ñu conformer ko à la constitution. il faut ñu uniformiser ko et aux intérêts du Sénégal. normalement parce que mënuñuy les ressources naturelles appartiennent au peuple fële ñu ni l'hydrocarbure extrait en terre de puits appartient aux contractants. ah et su moo tax les dix pour de Petrosen dañ ciy teg toujours daction action gratuite. Hmm. pour wane ni Petrosen moomul dañ koo sédd daction action gratuite. léegi nag les exemples sont à côté de nous boo demee ci dëkk bu mel ni Angola. l'Angola est concessionnaire sur tous ses blocs la Sonangol mooy pétrole Petrosen u Angola. moom mooy concessionnaire ci ci yi ñoom du ñu signer ay contrat de partage de production mais contrat de service la ñuy lañu lañuy la ñuy signer mm. c'est-à-dire partenariat technique la ñuy wut ñoom ñooy partenaire financier parce que titre minier d'hydrocarbure bi ñu lay jox mu am étude sismique trois dimensions bu bu recelé ni yaa ngi toog ci réservoir bu x milliards de barils kooku mm. moo lay permettre nga lever ay fonds en bourse dans toute n'importe quelle place boursière boo fa yóbboo sa titre minier d'hydrocarbure nga lever ay milliards yoo xam ne day financer ce projet léegi nag mu des le partenariat technique ñi nga xam ne dañuy def méga yi en haute mer ak yooyu tout sa plateforme yi et tout loolu di nga soxla un partenaire technique boo xam ne mën nga ko fay en actif mën nga ko fay en en en en argent. Mhm. souvent même boo boo koy fay en actif doo passé douze pour cent boo xoolee Arabie Saoudite ñoom ñu ngi am presque quatre vingt dix huit ou vingt quinze pour cent de leur de leurs ressources avec quatre-vingt-douze pour cent de sa ressource donc partenariat yu mel noonu ngay nuwee Angola euh, cinquante et jëm kow lay am ci ressource am total amul fa cinquante pour cent total mi am fii quatre-vingt-dix pour cent amul foofu cinquante cent même dans la distribution exclusivité euh, euh, kii la Sonangol total ba mu bëggee ñu def ay enseignants ci station d'essence Angola yi dafa dolli ay actif pour rek ñu bind total day dafa dolli ay actif donc amul sax 30 pour cent foofu mais ñun la ñu yëpp parce que ñun ñoo ñàkk fayda di ay accord léonien ay dispositions léoniennes yoo xam ne bu fekkee ne dañ koy booleeg nag di wër ci plateau yi dem ci presse bi di ñu distiller ay faux chiffres mm-hmm. loolu dafa mel ni dañu xeeb intelligence su Sénégalais yi mais maa ngi sant yàlla bi nga xam ne léegi euh, débat public bi posé nañ ko sur la place publique. Mm-hmm. Mm-hmm. ci ressources naturelles yi. ci gestion ressources naturelles yi. parce que am rek ngeen ma. seen yeneen collègue aussi interpellé nañ ma mhm. euh, euh, ça va être ma deuxième intervention sur le même sujet donc ça veut dire que les Sénégalais sont en alerte et puis ils suivent mhm. loolu nag dafa war a wéy ba assemblée nationale mhm. comme ça ñoom dëgg bi ñu ñu teg ko foofu bu fekkee ni cinquante pour cent la ñuy am ñu wax ci ban bloc lañ ko am ak naka lañ ko amee voilà parce que mënoo am cinquante quatre pour ba noppi naan ay cinquante milliards la lay dikkee ay ay ay cent milliards mooy lan Clédor même Clédor oui xam nga xam nga instant bi nii waxtaan bi am na solo am solo goo xamante ne est-ce que mën nga ñu defal honneur bu ñëwaat dellusiwaat ci plateau bi même si sa jot bëriwul bu fekkee mën na nekk lundi wala mardi lundi wala mardi rek nga ñëw faj waa yéen yéen ay programmé loolu sa dépendra que de vous mais nag fexe leen aussi fexe leen aussi mhm. waa Petrosen ma ab politiciens yi de waxuma ay waa APR de waa Petrosen d'accord nañu ñëw am nañu de communication mhm. ils ont un service il faut les saisir. d'accord Petrosen laa wax de keneen wala direction de l'énergie. wala mhm. Petrosen la ñu ñëw. d'accord dinaa la dinaa la jéem a woo balaa bu émission bi jeexee. xam naa ni euh, dinañu ko kale d'ici semaine bi comme ça nga mën fee teew gën a yaatal waxtaan wi. merci mais en attendant boo liree euh, tableau de partage de production boobu di ngeen comprendre lu bëri. d'accord loolu la Macky Sall signé. d'accord te loolu moo nekk ci code bi. jërëjëf jërëjëf. Clédor merci beaucoup merci Euh, merci dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne Clédor yëkkati na ko léegi nag moom hmm, xanaa dama leen di bàyyi rek ngeen réagir. Ah. yaa Seydi ay ca da bëggoon wax. waaw man de dafa mel ne pour ñëpp dégg lu euh, dégg na ñëpp. Mhm. waaye dafa mel ne Sénégal dañuy nelaw ah <laughs> non xam nga tax euh, bu dee lii ñoo ko moom xam dañ naan xubbul watani minal imaan yi. Mhm. bëgg sa réew ci diinal bokk. yéen tamit ne des na de mooy da nga koy fisal. Clédor euh, mi wax léegi ak ki doon wax léegi ci kanam nu ñu tudd. Sambatal Sarr. waaw ñoom dañu war a ñëw ci xutba ajjuma grande mosquée. ah, ah mais c'est normal mais problème dëkk bi la ko war a wax nit ñi ñay toog ji julli kenn noo kii jiite ñëwagul xutba bi da ciy bokk. oustaz Sénégal xam seen alal xam li ñu dund. Hmm. santé ak lépp ñu koy wax ñu leer. Hmm. te jeune sénégalais yi nañuy informé wu te bàyyi te di nelaw. Hmm. loolu ñu yóbbee ne suñu alal ñu ngi koy sàcc di ko dem wóor na suñu borom ni ma dégg ñuy wax nii de. bis bu ñu soxalee suñ li ñu moom. Sénégal yi nekk extérieur dootuñu yóbbante fi dara. ndax lépp lépp mi ngi fi nag. lii nag ñi tax nit ñi ne maa ngi doo ko xam ne li tax nit ñii nag mooy ci réew ne duñ ko baax ku leen rey. maa ngi ko doo ko xam. te dañ ko fi bàyyi de. wallaahi pétrole dina fi yàgg ay milliards at ñoom kenn fa dañ leen di fàtte sax far. nañ indi gëm yàlla xam gëm yàlla mooy li li ci nit. li ñuy bële fi yëpp lii la. coor coor yëpp lii la ñi bëgg réew mi lii tax ñi ko yor tamit lii tax. mais foofu indi gëm yàlla. pétrole bi ñoo ko moom gaz bi ñoo ko moom il paraît sax même Sabodala ba ay hélico la ñu indi foofu station or bi yóbbu ko. Mm-hmm. mais pourquoi. ña dëkk ñu banaan naan fi ngeen dëkk da ngeen fi jóge na xam na ñoo gën a sonn sonn de ña fa dëkk. lan gas parce que fa ñu mm-hmm. mm-hmm. nga xam nga lan xeex yi am ci islam yépp li jëpp du diine xam nga lan la aar seen frontière. soqal seen mbay. nit ki la moom ñu jox ko ko. arab saudi gële. gis nga boo fa dëkkee sa maam nekkoon fa ba judd fa nga judd fa tax nga am ci alal alal alal pétrole ba. Mhm. lañ ko ño lañ ko ñoŋal ngir waa Saoudien yi. Mhm. mais pourquoi ñun ñu bëgg dañu noot duñu gisuñ pétrole léegi am boo daanee sa sax sax dañ xam nga tax ñuy ree. Mhm. dañ naan kii weex lan la. dëgg te foofu ñu leeral ko ni nga ko na wax ci wolof. nañ ko xutba nañ ko def ay tract yii. di yóbbu ci sénégalais ci marché yi. loolooy dëgg ci ci imam yi. waaw waaw ci journaux yi. loolooy dëgg ci. même les conférences religieuses. Mmh. mais mais dañu koy naxe. ku am gàmm wala màgg ñu indi la ceeb indi lépp war a bëlëve la te doo xam sa réew ci doxee. te oustaz na kaay ma yokkal la ci de gis nga foo invité Clédor Sène ci xutba yóbbaaleel Alpha Diallo mi fi teewoon démb xaw ma ndax suivre nga émission bam déet. déedéet ndax xam naa ne diggante Alpha Diallo Clédor Sène dëkk bi ko amul dënd dënd bu dëgër dëgg. soo Socé Ndiaye. <laughs> wallaay di nga toog di laajaat ci man ci man réew laa ne. wax naa ko fi benn jour nee naa si pays wallaay c'est une farce. ndax Clédor fii la toog oustaz ne la mburu mi ngay nekkee. Mhm. OGM la. suukar bu mbokk mi ngay jëfandikoo di suukar sa café bul ma jël jëlal oustaz sama expression amul solo jëlal expression <laughs> oustaz laa bëgg xam mburu mi ngay nekkee oustaz. OGM mhm. la. OGM xam nga OGM. OGM day. mooy mooy mooy ah bo bo poson su bon soosu. waaw la noonu la ko mën a tuddee. boo xamante ne dañu koy def ah noonu la tudd kat. loo xamante ne yow day indi nit ñi. seen i seen i wàllu wér gu yaram euh, euh, source cancérigène ak yeneen yu ni mel yoo xamante ne wax nañ ko fi yëpp baaxul daal baaxul boo bëggee dégg-dégg ci gàttal. ñu ne mu ngi ci sunu mburu mi ngay ndekkee. Mm-hmm. mu ngi ci suukar bu mokk mi ngay naan. mu ngi oustaz ci ceeb bi nga xamante ne ceeb importé bi ñuy indi fii ci réew mi OGM nga ci biir. maïs duudu xam nga ko. mais maïs doux potu maïs doux. mu ngi ci biir sauce soja mu ngi ci biir. te loolu yëpp dañu koy jëfandikoo ci mim réew. waaw kon oustaz loolu dama la ko joxaale xibaar boo yóbbaale kon Clédor Sène yóbbaaleel Alpha Diallo. mu ngi ci ndawal li ñuy lekk tous les jours. xam ne mu ngi ndawal. Euh, Nabou. waaw waaw Yacine sama jigéen. Mhm. wax naa ko fi bu yàggul man leen <laughs> njàng mi li tax ñu yàqu ko Occident yi la lu tax ñu bëgg ñu tookee Occident la. bëgg na ñoom ñu ñëw di du sénégalais dama ne ko lu nit nit jàng ci àdduna bi Sénégal dàq ñoo ñoo dàq jàng